la santé et de a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 816 tests réalisés, 51 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,25%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 47 contacts suivis par nos services. achats issus de la transmission communautaire répartis entre Yoff 1, Dakar Plateau 1, Yeumbeul 1 et Touba 1. 24 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann 3 de l'hôpital principal 6. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 2480 cas ont été déclarés positifs, dont 973 guéris, 25 décédés et donc 1481 sous traitement. le ministère de la Santé et de sociale continue d'exhorter les au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. tey bésu dimanche 17 mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a ci juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom benn test yi ñu def juróom fukk ak benn ñoo ci positif maanaam ñeent fukk ak juróom-ñaar cas contact ak ñeenti cas communautaire benn ci Yoff benn ci Dakar Plateau benn ci Yëmbal ak benn ci tuuba ñaar fukk ñeent si ñi ñu hospitalisé woon war nañu bésu tey juróom-ñeenti cas ñoo nekk si suñu service de réanimation mooy ñi ñuy wax cas grave ñett ci hôpital Fann juróom benn ci hôpital principal ñeneen ñi des ci suñu hôpitaux yi ñu ngi tane ci bësu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na ñaari junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk kaa juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ñoo ci wër ñaar fukk ak juróom ñàkk ci seen bakkan mu des junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé